moom Serigne Abdoul Aziz moo ko koy jox. kon nag Serigne Habib Biaye. Serigne Habib Biaye. mi nekk Côte d'Ivoire. mi nekk Côte d'Ivoire. dafa liggéeyal Serigne Touba tey jàmbaar. dafa liggéeyal Serigne Touba tey jàmbaar. a na Serigne Aziz Mbaye. yabal na Serigne Aziz Mbaye. jox ko teraanga yu am ndam loxo yee baara ku ne woyi am ndam ku jóg taxaw màgg baara bu déwéne yàlla na nga ñëw na ñëpp jóg sargal sëñ baara mu ngi dugg baara ja sëriñ baara laamin mamadu laamin baara ku ne woyi am ndam baara ñu dalal Cheikh Murtada moom Cheikh Abdou Lahad moom Xaadim Rasuul agsi na Cheikh Murtada moom Cheikh Abdou Lahad yokkum jumaa ji Cheikh kaamin Cheikh Abdou Lahad bàyyi Serigne Sidi ak Serigne waaw Moodu wax nga kii dugg si mooy ambassadeuru Cheikhul Khadim jàmbaaru Grand Bassam Cheikh Murtada moom Cheikh Abdou mi bàyyam ne woon asalu man lee sa loo ko faan axat sa bàyyi nga daaray kaamil tëdd ni soxna Mariama Jaxate ni soxna Jëng si la li Joor si la li baas Faat si la li baas asa Jaxate sa maama nga méwnu waaye nag kaddu gi dañ ko jëme woon kër Cheikh Modou Lamine Baara ak kër Cheikh Mouhamadul Moustapha soxna Aminata Lo doy na roy waay moo mel ni Cheikh Modou Moustapha mi jëlee baayam njaaram indi Touba moo indi ray moo fi def jumaa ji Moustapha waaye nag Cheikh Madeleine Baara mi nga xam ne keroog bi mu gënee àdduna ci la sëñ Tuubaa yeewi ñam fa fekkoon ñëpp Cheikh Cheikh Ndam Abdourahmane day falli falli ci lu gaaw sëñ Baara mat naa ragal ci xarnu bi fa jaaju moo ci gën a gaaw sëriñ Baara def leen lu magal sëriñ Baara fa jaaju moo ci gën a gaaw lu ma mu ne waaw day fal di folli ci lu gaaw mat naa ragal ci xarnu bi Cheikh Modou Baara malere jolli yaras mu taw guy min lu doon taw Serigne Baara yelay malaayika seeni lim juróom ñett lan ñoo ñoom taw aras wóor na Serigne Baara baray Mamadou Lamine du Lamine Baara Baara ku la wayam ndam baari saxaaya Baara Modou Lamine Mamadou Lamine baaraku la way am ndam baari saaka maa ngi jégalu man bu dee jox waa kër Serigne bu ma amee ngor mbaa am jom war na maa yëkkati Serigne Bara ndax man nu ma mel Serigne Bara la. mina a rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala hadil wa ala alihi wa wa man tabiahu dala ila yawmi din bu ñu sante yàlla julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam gërëm ku tedd ki ñoo ngi yëkkati suñu kàddu ci turu délégation bi nga xam ni mu ngi bàyyi ko ci suñu wayjur suñu sëriñ Baye Ahmadou Makhtar mi nga xam ni mooy kilifak néegu soxna Aminata Lo délégation boobu bàyyi ko ci moom ak jëwriñam di sëriñ Moustapha am Sidi Maxtaar mi nga xam ni mooy jëwriñam ci njabootu Cheikh Mouhamadul Amin te suñu mag sëriñ Cheikh mu sëriñ Abdoul Aziz Bara jiite ko ànd ak sama mag ji di sëriñ Sidi Ahmed nga xam ni tuuti la ma magee <laughs> mooy bokk ci délégation bi ak sëñ Basirum sëñ Xadim Awa Ba ak sëñ yi daali Mbakke mu sëñ Abdou Aziz Baara ànd ak suñu jaam sëriñ Basiru Jaxate mooy mu ànd ci délégation bi ak sëriñ Maam Cheikh Mbakke Mële ak sëriñ Fàllu mu sëriñ Aliou sëriñ Basiru mu sëñ Mahamadan mu Cheikh Mamadou mustafa ñoom ñëpp ñu ànd ak itam soxna maam Amina Ami Diop maam Asta Bara ak El Hadj ak madame Mbacke Soxna ayda ñoom ñëpp ñu ci délégation bi ñu ñëw ak daayira fédération Cheikh Mouhamadul Amin Bara bi nga xam ni El Hadj moo ko jiite mu ànd ak ñi àndal ñëpp ñu ñëw fii tey ca bés bi nga xam ni mooy bésu Soxna Jaara te ñu koy waajale màggalu Poroxaan kon Cheikh Mahmoud Mourtada yow mi nga xam ni yaay kilifa jataay bi di suñu waajur ñu xam la bu yàgg itam ndax nekkoon nañ ak yow kër Cheikh Mahmoud Mourtada ci sa pas-pas ak sa taalibe ak sa xër ci sëriñ bi ba tey sa doom ju baax jii di Cheikh Abdoul Ahad yor liggéey bu mag bi nga xam ni yaa ko ci jox ndigal kon ñoo ngi fab liggéey bépp di ko ak nuyoo bi ak siyaar yi di ko teg ci sa loxo bu ñu ko tegee ci sa loxo teg nañ ko ci loxol sëriñ Sidi Mbacke bi nga xam ni mooy xalifa Cheikh Abdoul Ahad ak mbooleem njabootu Cheikh Abdoul Ahad ginnaaw bu ñu siyaaree ñaanal Serigne Touba Cheikh Modou Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ko wér nga xam ni bis bi xam nañu ni mu ko ñore woon ak ni mu ko daan taxawoo ba tey jii itam kon ñi ngi koy siyaar tey ñaan yàlla suñu borom mi nga xam ni lu ko neex def mu guddal fanam te may ko wér di nuyu délégation yi fi fekk yépp te ñu rendre leen dugal leen ci biir liggéey bi muy soxna Xadi Baara mi nga xam ne Cheikh Baara Diop ànd ak taalibe yu bari bàyyi ko Kaolack ñëw fi di nuyu délégation bi nga xam ni bàyyi ko na Darou Rahman euh, waa kër Serigne Cheikh Darou Rahman te sëñ Abdou Ahad ji yabal leen nuyu itam délégation bi nga xam ni dafa bàyyi ci Soxna Bali Muntaxa moom mi nga xam ne mooy mareenu bis bi ñu leen di nuyu di leen siyaar bu baax ñi ci ànd ñëpp xam naa kàddu yi du gudd ndax waxtu julli bi dafa jot kàddu sant la. ak ngërëm ak ñaan gu bàyyikoo ci Baye Ahmadou Makhtar ak njaboot gi yëpp jëm ci Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ni sa doom la yow Cheikh Ahmadou Mourtala di seen doom itam ci pas-pas bi ak taalibe gi ak doxin gi ndax naka ni si daaw bi ñu taxawalee bis bi fii balaa may dem la ma bisu déwén bi incha allahu soxna Aminata Lo loo lañu koy jagleel. ah bis bi itam nag nuyu nuru na borom eh, sargalaale sëñ Abdou Ahad Bousso ci wax yu rafet yi mu wax ci soxna jaara nga xam ne doy na ab bind waaye soxna Aminata Lo itam ni soxna jaara nekkee royukaay ci wetu Momar Anta Sali ak taxawaayam soxna Aminata Lo noonu la nekkee royukaay ci wetu Cheikh na Cheikhul Khadim ku tedd ki ndax xam ngeen ni ci gàttal junj dañ ko fi léegi benn tàkkusaan ku tedd ki dafa woote tàkkusaani suuf wax ni sama ruu gi de sama borom soxla na ko wante yàlla sama borom may na ma su ma amee ku ma mën a demal dina ma mën a àggale liggéey bi soxna Aminata Lo bi mu ko déggee ni ko mbàkke li ma gis nga yanu ko ci aw yiw yanal ko jaam yi duma seetaan mukk jaam yi di ko ñàkk te ñu fi nekk ñépp ci kër gi seen jaam jaamaat la kon baal ma dem demal ñooñu ñëpp sëriñ bi nangul ko loolu muy waxtu wii la soxna si dem ci ginnaaw néeg bi di wut ndox walla mat foofu la ko ndox suuf leen ma jaan matt ko sëñ bi taxawal julli balaa seen bi génn nopp ci julli gi soxna si génn àddina kon nangu googu mu nangu Seexul Xadiim joxe boppam joxe ak ruuxam ngir sëriñ bi te ñëpp xam ni yoonu yoonu jaayante la loolu bind la ci soxla yi nga xam ni ñu ngi seeni boroom kër ndax Cheikhul Khadim daana wax naan daana dënk ñëpp waaye jigéen ju mu daan jox dënk ngay joxe ngay dem boroom ngay dem sa kër daleen daan wax jigéen dafay wut royukaay jigéen dafay wut royukaay ni leen nag nit ku nekk ci àddina di dund te génnagul àddina kooku matul royukaay ndax njuumte weesagul ci moom da ngeen di fekk koo xam ni nekk na ci àddina ba génn ko musta mooy boromam musta mooy borom këram ngeen daf ko royukaay ni leen soxna jaara de mat na royukaay waaye soxna Aminata mi itam Aminata Lo mi itam nga xam ni moom la Cheikh Abdoul Ahad tudde bis bi moom itam mat na royukaay ci képp ku bëgg lu baax kon ñi ngi gàttal wax ji foofu di sant ñëpp di gërëm ñëpp. moom sëñ Abdou Aziz moom sëñ Modou Lamine Baara.